um, dimas Benen show on GRTS ngeen ande see sen xarit ak um, sen soppe i boy ak caare ñu nara and ak ci benen star line ak benen star content yo bu baha baha ba way 2 weeks gisuma la maa ngi hmm. pusu ma randuma yaa ngi reer fess fi da no hmm. reeruma nak hmm. ma fi okay di content si lolu bu bahabahabah. baha ba a baax ñu di nuyu di begin buah baax a baax a baax beneen mungkin aku Starline 4373910 4375905 ngeen ges kan mooy suñu star slim rafet kan obviously that makes it a jigen, right bi head of a slim njool rafet bet. Wow, jigen la obviously jigéen mhm. okay mhm. fine waaye lima lima lima leen mën lima wax ci loolu lima ma mën ndanan parce que fi ku fi jaar rek sta la ndanan nga ak lépp looy munti def rek mhm. ndanan nga kan. mhm. so ki tamit benen sta la mhm. sta la ci limo def man daal Amerika ma ah. sof waaw nek na nak ko xamne ne kan maybe ni expect ni won ne dinañ ko fi invite but then mu ngi fi tay waaw di kontaan ci lolu bu baax a baax a waaw ok eh, léegi lu ñuy def rek dañu dem ak suñu first break bi ah, suñu delu see rek ñu continuer

la suñu dekkala ñun ñoo ci war a taxaw kaatong ba pakaw koy na dem ba bakaw na ku ne participate flag bi naaw sa kaw xewal yi taw amu dellu gannaaw waay suñu di gas ñe di suul dara du mun a kulbul bale sa kër jël mbalit sànni si mbedda bi magum jëma yoral loolom seben si mbedda bi public smoking ak yeneen xeetu pollution fayal sa cigarette bi yang ma pollution bus fire bi bëri na nit nañ solution deforestation war nañ di ko moytu comme yankuba saaxonka xanaa yiroo li kuntu ana patriote yi ñëw leen ñu génn all out yeah su si ñëpp jàppee dinañ si génn no doubt suñu dëkk la ñu defarul kenn du ko dee suñu réew la ñu defarul man ngeen bu naani tali ba pour kuréel Gambia képp kuy doomi réew mi lii de war na laa dañu fàtte yëfi loolu nga xam ne ñu ni neen laa ndax réew mi suñu réew laa su baaxee ñun la baaxal jàmm ju ñu àddina si xamee bu ñu ko kenn yaaxal li koy doxal nañu soxal ay du yem ci bopp borom bu ko kenn ñaan booral lu xewoon fële ci Rwanda war naa doy ay ëpp na xëccët bi dafa doy ëpp na lan moo tax ñu ni neen di bañante mel ni du neen hatred fes fidèle ignorance dañu tartel fexe leen ba bàyyi ci xel te di mooy te nekk lu ñu mel jéem a raxas xol yi xool intérêt ko yellool te bàyyi népotisme jammoo bennoo bu kenn kennoo nenu labal suñuy meloo lu ñuy xëccoo amul solo amul solo ñu dëkk laa bu ñu defarul kenn du ko dee the secretaries, lawyers, doctors and teachers, farmers, plumbers, the fishermen and welders, carpenters, scholars, the nation builders. You better build this land. Do you understand? When we're ready to make it, we'll be building the nation with the real formation. We don't need corruption in every occasion. Let us build the nation sacrificing for the country. more illegal don't be corrupt in your office, look réew mi du dem, lu koy jëmale kanam ma wara know here. xeex, amut xaaj ak seen na for represent. Let us come together, develop together, build the land together, ready for whatever, backwards never. I'm ready to make it, together we'll make it. Wow, loolu the one um, poetic X poetic X nice very nice <laughs> and talking about defar sa dëkka tey Gatsby. ok she contributes a lot ah? Mm-hmm. Ah, am Euh, timam bi la bëggoon a wax waaye su ma ko waxee rek xam na ñëpp dinañ xam kan la. noo jëlee nga yow euh, mm-hmm. mm-hmm. si um, defar suñu dëkka. right torop. a whole lot. yaa mm. moo tax sax euh, boo moom mooy ñëw ma kontaan mm-hmm. parce que. yàggoon naa koo séentu. parce que waxtaan bi nay yaatu. waaw parce que yàgg naa koo déglu. <laughs> maa ngi wax suma xel ne kii xaw kañ laa ko am nag waaye. bëgg naa ko am. waaw xam nga man kanam su ma ko xoolee rek foog ma smile bi ko xam nga dafa nice. waaw jàkkaarloo tey mu si biir studio bi. di kontaan si wax seen guest bi kan la. waaw Thierry teewloo dañu ma rek may gaay tuuti gaay xam no ñu may gaay tuuti ok. i boy wàcc na ma ba pare parce que wax na ne dafa njool slim. nice nice. ok yeah. agree, I agree to that. Mm -hmm. Njool slim nice. Mm -hmm. And maybe the for miscalling of him, a model, but then <laughs> she was too busy being a tomboy. And uh, fuck na maa ngi bari wax de. ngi bari wax kay. ah, ah di kontaan si lu ok dafa Njool slim nice that's all. 4373910 <laughs> ah, mu ngi naa call. Ah, guest kan mooy star nekk si line. ok ok ñu jël kola boobu allo. Yes, hello. ah seen la. Yaasali koy kole. Binta Camara abu. abu ko lu la. non de dama gis rek. ok ok jërëjëf ah ok an naka ah. thank you so much for calling. ok ah, di kontaan ci kooku bu baax a baax a baax. Mhm. mu ne Sali Ndiaye ma wish mu nekkoon moom rek ah. Euh, say naka ma ne leen euh, parti part bi laa dee like sa show bi. Mhm. parce que xam nga nit ñi dee call di mhm. guest. it's really nice. dafa njool naka ko waxee ah. njool sew nice. ma yokka si dafa miss calling am dafa waroon a a model. but she was too busy being a tomboy. Mm-hmm. Mm-hmm. yeah man sax bu ma ko tooñ parce que mun naa ma yónni ko guru sax. ah ci loolu nga toolee. yeah because ah. dafa mel ni sa sa xel moom la jëm. waaw léegi kay. moom rek. <laughs> léegi dafa njool slim nice and Iboy xelam si moom la dem. dafa ni dañ am beneen kola Lamin ah, ndax allo kola allo. hello. yes hello kola. ngeedal alhamdulilah seen ñëw si tey sista Njaay la sista Njaay Bruce B thank you for calling waaw table yaa ok jërëjëf jërëjëf <laughs> ah di kontaan si loolu bu baax a baax. xamal ma jaaxal. non di kontaan si waa Burusu bi bu baax a baax a baax cere. waaw dam leen like rek waaw teel a tax. Mhm, ah. mhm. di bég ci ñoom. Mhm. koñ boobu. yaa boobu la. <laughs> boobu noonu. yaa dañoo jëlaat suñu beneen kóol. am naa ko beneen ci a nag. ok. Maodo Kodu. kooku noonu. waaw moom te dee woy noonu. waaw moom like ma ko daal. ah man ma ko